bikum mbooloo mu jéggi dayo mbooloo mu bari bay tuuru mbooloo mu fees ba rembat xàllab nit moom la ñu gis démb ca avenue Cheikh Anta Diop bu ndakaaru waa ñoo lank ñoo bañ ñoo wàcce Dakar démb doxub ñaxtu bu kenn mës ta gis foo natt mbooloo ma rek weesu na ko mbedd mu lépp ñuul ku ko ak bopp doomu xaadama critique yéen a kaay ñi ko xamal 24 heures yéen a kaay feelu ko ne ñaxtu ñàkk ànd ci courant bu cher bi bàyyi Guy Marius Sagna mu génn ca kaso ba moo waral démb sénégalais yi génn ci xanam gu jéggi dayo enquête yéen a kaay ne mbooloo mu bëri mais xam ngeen lu tax Guy Marius Sagna des ci kaso gi bët set rek sénégalais yi ko gën a bëgg te di ko gën a xeexal ndax ñoom la doon xeexal ba dem ci kaso gi njiital ñoo lànk ñoo bañ Aliou ba tey a a sànni ñi ko bëggoon a nag gaa ne neen du ñenn ñu mooy waa APR seen ndaw yi jaaya su du quotidien na ay xeer lañ leen doon sànni xam na sax ñun ca gaañ ak ñun ca teg loxo waaye waa ñoo lànk ñoom xam nañ ndam démb seen doxu ñaxtu bi a yaaw seetal nit ñi génn nañ lañ bëggoon a wax wax nañ ko tribune yéen a kaay na ñoo lànk kay ma ngay wéyal seen ñoo bañ ga te fekk gi mari sañaa génn ci kaso gi gaa yi duñ deltu ginnaaw de fa ñuy continuer rek di amal doxu ñaxtu nay leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy ne kaaraange askanu Sénégal a sàmm kon ñàkk kaaraange gi fi xaw ñuy rey nit ñi guddeeg bëccëg lu ji njaaga turbine yéen kaay ñi ko xamal wal fajir yéen a kaay na ko ma yokkal la ci réew mi ñàkk kaaraange courant bi cher na léegi nag dund gi moo yokk gën a cherati rawatina diwlin askan wi sonn nañ wa waneen askan wu sonn moo ña nekk ca mbëbës Kër Massar Malika tey ci samedi ji njiit réew Macky fa fay dem ci ñaareelu bëccëg bi mu duppee kilin deey setal dëkk bi waaye waa mbëbës ne nañ bëgguñ faa gis Macky bu mu taxaw foofa Kër ma ak Malika yëpp ña nga fas yéen a taxaw na ko xalaa mandir bàjjo xalaa xalaa fi dugg ci suñ quartier yi ndax mbalit mi ñu tonn yëpp fi lañ koy si ñun nañ las yéen a kaay moo ñu ko xamal la mu ñu xamal moom Walf Fadjri yéen a kaay mooy coow xiiro ŋaayo ba am APR naka noonu coow xiiro ŋaayo ba am Macky 2012 kilifteefu Macky Sall nag moo war a feeñ tranché gaa ñu ñëpp tegu ci yoon lu ko mooy du baax de li baaxut Sénégal te bari fi lool nag mooy ay kilifa yu ñu jox ndomba tànk directeur nga wala loo munti doon ñu jox la xalalu réew mi ngay sàcc di toppale xaalisu askan wi def ko sa poos libération moo ñu xamal ne rapport cour des comptes 2015 2016 2017 génn na waaye la ca nekk yéen a bi ne ko xoolee xam nga lan laa wax ngóob yaa ngi kaay leen jàpp sàcc yaa ngi lekk nañ alalu askan wi ci ay tappale yéen a kaay bi ma wax leen fi tappale gi commencé fesman bi ñu fi doon xamal lu ëpp juróomi milliards suñu xaalis moom la gaa ñuy sàcc ay ñu ne déetewaay réew mu Soudan Chine Cameroun Libye Gabon ndimbali yi ñu dimbali woon Sénégal xaalis boobu askan wi kenn gisul ko waa Ageroute ñoom ngir defar rek laa wax bureau Karim Wade ba 7 millions lañ dugal ñu ne ko Cissés ñoom ñoo ko ne wàllu njublang la ca Cissés def kenn defut ko ci ayaw seetal groupe yi di joxe courant lañ wax ne moom lañ luwee téeméer ak fukk ak juróom-ñeenti millions groupe laa leen wax de naka noona dal waaye jëwriñ ñu dénk wàllu miin daaj ba xamal na fa njublak l'observateur na ko bul génn gum gis nga sises googu pour defar rek seet setal ak yooyu juróom-ñaar fukk ak juróom-ñetti millions lañ ca def neeneen le quotidien yéen a na ko ma yokkal la ci SNCS SONES profit yu garaaw am na fa laas yéen a na daal ci a épinglé l'observateur a kese santé téeméeri million moom la fa fay ci ay prime waa cour des comptes nag danañu amal janook taskatu xibaar yi ni ki tey yéen a kaay bi na fa ñuy leeral ñiñ épinglé maanaam toj affaire mu gën a leer donte biñu leen njiit réew Macky Sall biñ ko joxee rapport bi ba léegi ci lañ ko def ci en ligne maanaam ku bëgg a mën ngaa dem xool ko nay leer laneen lu leer ba yegg ca naan ñi jàk mooy Lamine Diack ginnaaw bu ko àttakat ba sëkkatalee nee na surveillance gi waroon ci diggante mook doomam defutoon ko critique yéen a kaay ñi ko xamal Espagne stade a kaay ñu ko xamal li mu ñu xamal moom Aliou Cissé ci record yéen a kaay mooy ne Bouna man soxlawu ma ko te fekk maa ngi nekk entraîneur du ma sa football équipe nationale ndax Bouna Sarr moom fay foxantu di football Marseille Sénégal oo ko mu bañ Guinée woo ko mu bañ di xalaat dem France léegi dem ba français yi soxlaatuñ ko mu naan Sénégal bu mu ñu foxantoo sunu làmb yéen a kaay jox kàddu Double Less bàyyi Balla Gaye 2 nee na combat Boy Niang ak Balla Gaye la ciy laaj fekk Balla mérité kenn waxagut ma waxu combat boobu nag la mu wax moom Tafa Gueye bu Fass ci l'Observateur mooy ne doomu Luc mën naa taxawal combat Touba ak moo Lo ma taxaw ci turbine yéen a kaay gis fa téeméer ak juróom fukki ton ci ceeb bu bon bu ñu dugaloon Sénégal ngir jaay ko askan wi takk der yi teg ko loxo ba tax yéen a kaay bi di laajte mais est ñun foogu leen Sénégal fa ña war a bàyyi lekk ceeb ay yow ceeb yoo xam ne kenn xamul fu ñu ko defe lu ñu ko defe rek fa mu jaar ñu ñëw rek di ko jaay askan wi ñuy lekk loo xam ne baaxul seen wér gi yaram